leen jaajëfal euh, si teewlu bi seen émission face to face euh, dellusiwaat ñu am nag mbégte tey euh, dalalaat ci biir émission bi sunu papa seen papa koo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ak li ko wër ndax monument la. Euh, ci musique mais monument la aussi ci euh, artiste boo xam ne euh, dafay engagé wu ci la chose politique bu ñu waxee nag politique ku ne xam ne ne mooy tubaab bi bàkkee ne c'est l'art de la cité moom nag yamul nag ci tey micro di way waaye ci micro ba nag dafay yeewaale sénégalais askan wi di joxewaale aussi xalaatam ci nu ñu yoree réew mi ak ñaka yor Euh, mu mel ne kon euh, citoyen laa dalal tey ci biir émission bi maam ci nag mbégte bu mag a mag a mag a mag euh, ñu àndandoo rek ma ak yéen ñu nuyu sargal bu baax nag sunu papa père Ouza ñu ñu bàyyi la ñu nuyoo père ak ñi lay seetaan di la teewlu. ni ma ko daan def rek sama nee tuuti. taamal ci bismillahi rahmaani rahim. yàlla jàppale ñu yeggali ko alhamdulilahi rabbil alamin di la sant di am mbégte lool. Mhm. retrouvé la. <laughs> parce que ba ñu yàggee liggéey yàgg na. yàgg na na torop yàgg na torop la donc bu ñu toogee tey ba ñun. Mm-hmm. ñu gis benn affaire bu ko wax ñu fexe ba gis la. Mm-hmm. jàppale nga jàpp ci. Mm-hmm. ba ñu def émission bi tey lu dul mbégte la ñuy am. ah euh, di profiter nag ci sa émission bi xam ne macha allah c'est bien suivi. di jaale ñëpp. Didial mm-hmm. ko demee ni Mati Thiam. sama mm-hmm. fille branché la. Mm-hmm. papam fi jóge Absa Samb sama fille branché la. yaayam jóge fi ah, di jaale le grand saxophone Issa Sissoko. waaw waaw ñu leen di commencé loolu daal lay tàmbalee jaale leen ñoom ñëpp. di ñaan sa borom ci barke bismillahi rahmaani rahim. yàlla yërëmaat leen xare leen àjjana barke allahumma salli ala sayyidina amiin yaa nga duggee noonu rafet na ñu àndandoo yow rek ñu ni tamit euh, euh, jébal suñu njaal euh, njaboot googu nga xam ne seen njaboot ñoom ñoo fi wàññeeku euh, ñoom ñëpp nag euh, nekk ay royukaay mm-hmm. ak ñu ñu ràññee euh, ci miim réew ci wàll bi nga nekk bokk kaak mm-hmm. ñoom muy mm-hmm. wàllu aar kon li ñu wax rek mooy li li waral nag tey invitation bi da di fu réew mi toll dañu soxla ko mel na yow. tey moom taxawaay analyste nga fi yore. <laughs> voilà <laughs> te taxawaay analyste politique bi <laughs> moom nga am tey. donc Père Ouza. ñu dugg ak yow ci xolu émission bi dooree ak euh, euh, li nu weesu barki démb bu muy élection présidentielle bi euh, gis naa sa ay interview mhm. nga wax ne président Macky moom nga voteel mhm. ren dëgg la lu tax nga tànn président Macky ah, balaa boobu maa ngi remercier peuple bi mhm. le peuple sénégalais qui a été mature di remercier tam le président il a été élu di remercier tam sama xarit la plus grande première dame que j'ai l'habitude de dire Marème Faye ah, jeunesse bi indi ñu ànd ak le président Macky mhm. euh, expérience bi ma am dama liiraat géopolitique bi. Mhm. j'ai fait une j'ai fait une lecture extraordinaire. Mhm. géopolitique bi am Sénégal. fekk jot nañ tegoon depuis longtemps jot na Africa. benn mouvement. africaniste la. Euh, donc à un an des élections ñu commencé def ay réflexions. ba def benn journée boo xam ne. professeur mooy mouvement jot na waaw jot na Africa yaa ngi koy rappelé. am professeur euh, Wage. Mm-hmm. Euh, ma Madi Wage moom tamit c'est un professeur. ak ñoom Jean ak ñoom Dikke. ak ñoom xale bi toog mm-hmm. waa yaraax yeeg ñëpp ñoom it asso waa ñëpp. Mm-hmm. ñu réfléchir fu ñu war a jëm. bu ñu ko defee nag suñu deux personnes deux euh, deux deux voix fi ne. mooy bi président Macky Sall la yor mooy voix. Idrissa Seck mhm. Mhm. mooy voix Madické Niang mhm. mooy voi pure pure beneen voix bi nag radical mooy Sonko ñu def journée de réflexion ñu ne nag dañuy dañuy réfléchir may un mois ñu vote mais bi ñu vote euh, mën nañ wax ne président Macky moo euh, euh, ci ñun suñu biir ne daal mieux vaut au lieu ñuy dem yeneen i c'est la même chose c'est la France Afrique mooy compté moom ci boppam France Afrique la il dit France Afrique la. Mm. il dit France Afrique la. ñu ne donc benn voix fi mm. mooy la voix la vision de monsieur Sonko. Mm. mais man par expérience ak suñu ñu ne bon c'est bien beau cette voix. mais xalaatuñu ne nu mu tuddati monsieur Sonko Sénégal 2019 dinañ ko fal. ndax lan nga parce que voix bi moo difficile. c'est une voix boo xam ñun ñëpp moom lañ gën pas d'africaniste bi. ñun ñëpp ku bëgg Afrique moom nga gëm. Mhm. mais Sénégal ñëw tollaguñu woon foo xam ne fi mu ne nii. Mhm. mënoon nañ ko votel dans ci sama interview yëpp loolu laa wax. nee mhm. nag j'aime cette voie. mooy troisième voie parce que panafricaniste panafricaniste la loolu laa gëm. mais par expérience. xamoon naa ne voie boobu dina am nag nit mais du mën jël élection yi. loolu tax gars yi rek bi ñu demee dernière minute ah majoritairement. ñu jël président Macky Sall. moom la ñu am ñu ma critiqué may leen li tax ñu jël ko c'est parce que tout simple que nañ ko bàyyi mu yeggali. Mm. understand et puis de deux am na lu mu réalisé. Mm. parce que man je sais xam na lu mu réalisé bokkuma ci les nihilistes. Mm. naan président bi réalisé daal bokkuma ci loolu. Mm-hmm. parce que dama wër Sénégal. Mm-hmm. Euh, euh, euh, PUDC. Mm-hmm. électricité xaw ma lan. ak Ila Touba. dem Kaolack j'ai fait tout le Sénégal. xam ne vraiment mu ngi bougé. xëy na nag. amuñu satisfaction. donc malgré tëj de sama benn xarit muy Khalifa Sall mais il fallait ñu jàppale président Macky Sall. ndax li liggéey ñu may ko daal. mu yeggali mu eggali waaw. sama kii itam waxoon dama ko Khadija de sama conseil la bi ñu toog waxtaan nu ñu war a def lu ñu def mu ne ma ah leen da laa ci xam mënoo trahir la première dame. Mm. loolu moom bokkoon na ci loolu yëpp bokk na ci xam ne vraiment. Euh, moo nga voteel président Macky Sall waaw mais mais xarit boobu la ne waroo trahir la première dame euh, kooku aji na aji na waaw mais mais mais la première dame mooy lan xanaa dafa am lu ñu seq première dame kooku euh, dinaa expliqué tey am solo tey ma mhm. maa ngi parce que ma leer nit ñi mhm. parce du question loolu c'est une première dame bi mu ñëwee ba tey élection taxul mhm. ba tey sur le plan social je prestige sur le plan social. Mm-hmm. yu bari dina ko def ak man. Mm-hmm. ay tabaski ay korite parce que man je trop sollicité sur le plan social. Mm-hmm. dina ma ci jàppale te du ma ko wax. musuma koo ñaan. mu ngi may déglu musuma ko demander un franc. mais mooy xam ne tabaski jot na mu ne naa def lii. korite eh, parce que yaayam jàlloo la sant. comprendre man jàllo be la ak sama tonton. neel kii a def tabaski lii ak sama tonton def lii loolu la ñuy la première dame. Euh, li tax ma émission bi neex ma nag. amalgame dafa am. li tubaab tudde imbroglio. Euh, bi ma jëlee décision bi. diaspora ak ñeneen ak ñeneen xas nañ. ne Ouza est devenu un réactionnaire. xam naa ne buuxal nañ ko alal. waaw waaw man man boobu sa laa gën a dégg dama dégg ñu ni euh, euh, père xëy na temps yi musique bi do euh, doxul na gëj nga woy album bi gëj na génnal ab album mhm. ñàkkul tamit xëy na banque yeeg yooyu saqatal la jamono saqatal la dépense yeeg yooyu nga ni xaaral comme ni nga ko waxee rek étudier nga situation bi nga ni côté bee ñoom ñoom Idrissa ak yooyu xëy na ñu am chance booy bee Sonko dafa comme ni nga waxee dégg naa nga ne trop radical dégg nga ni xaaral ñu jël ñu vote utile voté sûr mooy voté président Macky Sall xëy na mu mu delloo ba xis jàppale la tuuti. waaw bon dinaa la jox tey benn révélation hmm. en 2015. waaw man ak ñoom moo saw ak Awa Cheikh Dieng ak Babacar Sall. Hmm. defu nañ benn projet dinaa la wax ne. Hmm. amul benn projet bu gouvernement bi defal man amul. projet bii dinaa ko woon sa gars yi ñu seetaan ko bu ñu mënee jël caméra bi. waaw euh, of may jëlal ma bii. waaam maam émergence culture tour projet de tournée artistique de sensibilisation et de mobilisation. Voilà. des masses autour du plan Sénégal émergent. père na ba nga ne ba nga bindee plan Sénégal émergent dugal nga partisan. waaw waaw ma ñëw rek. bii moom bii bii moom bii moom père moom. waaw d'accord naa may ma rek. fii moom xeetu dóor nga doon <laughs> def fii. voilà voilà donc dañ doon imaginer. ne war na euh, plan émergent. Mm. war nañ ko mën a à travers la culture. Mm. nit ñi mën ko comprendre. waaw yéen boobu la ñu amoon. waaw yaa may dégg de. ak sama gars ñu ñun dajee waxtaan. waaw ñu jël dama lay wax ne benn projet musul taxaw. sama diggante ak ñoom. lu leer parce que nit ñi dañ def amalgame dafa ne dama lekk alal jox nañ ma cent million cinquante millions. Mm. am naa bala ñoo ñoom ñu. mais jël nga xaalis bu peut être bëriwul noonu ko non non non xam nga rek <laughs> daan bii. projet bu 200 millions la woon. boobu déjà ñun amoon nañ déjà 50 millions yu tege. pour ñu def ko. dañ wax ñoom ñu dimbali jàpp ci. ñu wut ay sponsor mhm. mhm. mais kii déposé naa ko. Mhm. septembre ba tey lettre bi seetal naa ñam si yàlla euh, Amady ja euh, mooy premier attaché culturel. sa gaaju yàlla na ko yàlla yërëm. xar ko àjjana. Ah, sama xarit ah, ah, mu ñëw ñu toog ñu toog ak moom. mënuñu ma mon ami maa ngi yow yàgg na lii boolewuñu mais projet bii di dañ ko def. dinaa ko jox président ba sànq suba déposé nañ ko sur le plan officiel déposé nañ ko euh, ci moom Souleymane Jules Diop mu ngi may dégg dem pour mu jàpp ci fa la lépp doxee. tàpp mais xanaa waxoo sa xarit. xam nga dafa yoo xam ne euh, sama première dame yeneen la ñu séq. Mm-hmm. mais du ay projet mm-hmm. noonu lay liggéeyee. yaa ma dégg. mbaa mm-hmm. daal ñu toog ñu toogaat damay expliquer rek nit ñi ba xam ne. c'est pas un d'argent. mais convigu vision la géopolitique. Ah. boo ñu toog ba fi may wax ak yow. 2015 ah. laa la wax de. Ah. mosu jot benn lettre sax. ne yëg nañ projet bi. ñu toog benn anne ba ci teg. ñu def bii euh, bi nu ñu ci ti euh, musique complexe aide musique ah projet de complexe en musique. formation et production. voilà bi dama wut audience ay ay ay partenaires. jóge en Europe. ne ma trouve nu parcelle bu 3000 hectares. Mm. ñu investir six cent millions. Mhm. pour ce complexe bi mhm. euh, gars yi jógee Europe. man damay expliquer damay li may expliquer dama bëgg a yi yaakaar ne dama lekk alal. Mhm. wala dama bokk ci ñoo xam ne ñu ngi regg. ma bëgg a expliquer peuple bi ne amul benn projet bu état bu Sénégal def ak ban Ouza. mais xëy na après émission bi ñu dañuy def. non non xëy na sax xëy na mais kii. xoolal lii depuis 2016 la. Ah. mais dama ko bàyyi woon parce que li dama indi ko tey. parce que li ñuy wax la. bon ma continuer ci affaire bi gars yi ma ñi ma dina président dina recevoir c'était au mois de du ma ko fàtte bu ñuy recevoir la sama gars yi jóge Europe mhm. ñëw toog parce que rek man rek mënu ma koon défendre sur le plan technique mhm. may leen bu ñu recevoir ngeen expliquer le président wala ku muy boole techniquement complexe bi li ñu doon bëgg ñun mooy le président de la République comme ni ma ko diggee woon dañuy jëkkee gisee. jox ma terrain boo xam ne bii soxlañ ci ñoom un franc y avait déjà des des partenaires. noonu la lépp doxee tab tam expliqué loolu ma expliqué loolu ko tey. parce que après sama bi ma àndeek euh, majorité présidentielle. j'ai reçu beaucoup de critiques. négatives on ne comprend plus Père Ouza. c' est normal ah. ñun nitu public lañ. mais loo tax ma émission ma expliqué gars yi. waaw pour amul benn projet. boo xam ne ko réaliser. d' accord mais par contre la première. daam seqandaag loo xam ne lii. sérieusement. li lawbe ba doon wax ku ma tàkku si li yaa ñu teree jaay mbaam mm-hmm. <laughs> moom moo ma teree jaay mbaam. parce que le plan social je suis trop sollicité. taal la lampe bi d' accord. waaw léegi léegi léegi euh, euh, Père yaakaar naa ne loolu euh, ay leeral yu am yu am solo la. Mm-hmm. et gëm naa tamit ne ak ni que émission bu jàllee. ndax ñoom ñu ngi koy seetaan bu émission bi jàllee moom gëm naa ne dina am évolution ci sa projet yi ndaxte déjà jàppale nga leen ci élection yi. Euh, wax nga ko urbi orbi euh, euh, am nga yii bu li ma bëgg rek mooy buñ la wooyee si émission bu ñu après émission bu ñu la wooyee woo ma nee ma woo nañ ma. incha allah parce que ma def suivi de cas laay def. kon président Macky am na deuxième mandat yow lan ngay lan ngay xaar ci moom ci deuxième mandat bi ana lan la war a yokk ana lan la war a bàyyi ana lan la war a wàññi. ok man li ma gis sama xalaat bu gàtt. Mhm. mais sama expérience Euh, ministre nar a def ay sept ans ndax affaire coalition ñu téye ko poñe ko waaw xoj ko kooku ci génne boppam na génne boppam ci affaire coalition mu defaraat parteem mhm. comprendre il y a cinq ans maintenant li mu mhm. bëggoon am na ko am na deuxième mandat donc ay coalition war ñu ko tenir mhm. en ah? otage en otage voilà le mot te j'ai compris que ne am na ay ministres yu fi nekk presque sept ans bu toppatee otage boobu otage yooyu tamit dañ fiy toogaat et c'est pas normal il des jeunes yoo xam ne sont là. ah mu yaatal mu mm-hmm. yaatal. et puis bañ a defati tam euh, mm-hmm. politique de va tan en guerre politique boobu j'ai toujours été contre cette politique. sa wax naa leen ko ju toog mag ñun ñu toog. donc va-t-en-guerre na ko génn léegi nag teg nag. waaw teg yoon woo xam ne ni nag dina génn par la grande porte. dëgg par l'histoire du Sénégal. parce est très jeune. ku judd 60 xaw ma 61. Mm-hmm. war nga marqué Sénégal mais euh, euh, euh, benn preuve bi ma lay wax wala jóore raw li si barki démb. Mm-hmm. ku def révolution gaana yéen. Mm-hmm. xoola kër mu ngi dox ci biir tali bi. oto yi baare ko mu wàcc joxe circulation en tant que ancien président. mais c'est beau. waay président Macky vraiment. war naa toll war naa man man koy. ñaan nga xam ne ñoom ñoo a. exécuté en tout cas moom euh, yéen a gi mu am ci Sénégal mooy gouvernement bi fi ñu doon nii euh, euh, xel yëpp ñu ngi jëm ci gouvernement bu bees bi kuy dugg kuy génn. Mhm. ak yu mel noonu yow la ban type ministre nga mun a nga ngay xaaj président Macky Sall ak i tamit tey bu ñu la woon Père Ousa xaymaal wala boog joxal note ministre Macky président Macky Sall jox ma si ñaar rek ñoo xam ne mun nga ma wax ne kii. peut-être bokk na si les meilleurs ministres kële bokk na ci les pires ministres loolu yëpp na war a dëxëñ nag ñun ban gouvernement bu bees lañu président Macky Sall waaw parce que man ce que j'ai compris mm, fa dëgg yàlla certain bii nu mu miin si bëri mhm. ñett laa ci gën a miin mooy Mbagnick ministre mhm. euh, ni ma doon respecté moo ma neex mhm. jékki-jékki waa booy foo toll ñëw ñu waxtaan ñu solti dëkk bi c'est très important Mbagnick dafa ma xam yëg dafa am Babacar Ba euh, Babacar Ba. Euh, waaw jeunesse c'est qui sport sport. Euh, Matar Ba Matar Ba. ok waaw sport. Mhm. ku oyof. Mhm. amul doo ko woo sa lu la jël. Mhm. c'est très important. oui Mame Mbaye boo gisee muy def def nii mais mm-hmm. nit ko oyof la ñu bari xamuñu loolu maam may ñaar dafa oyof donc mm-hmm. xam nga euh, peuple bi mm-hmm. ñi ci des vraiment man gis naa ci ministre yoo a téléphone sax pour nga jot leen téléphone wala nga jot audience sax duñu gis président moo gën a yomb moo gënoon yomb gis leen gis leen mais c'est j'ai mais c'est que j'appelle may wax kii que ce soit understand mais mais man euh, xaar nga tudd sa ministre yow Abdou Latif Coulibaly moom moo moo culture non kooku sama xarit la on a bourlingué en 2000 xeex bi ñoo ko daan xeex si. waaw ak Ablaye Wade ak Ablaye Wade moom la woon. waaye dafa am benn euh, wax be ko benn hic bu mu def. parce que j'étais à Paris euh, sa doom. mu sa xarit am benn defe naa bu mu doon def rajo son ma ko debal seeti ministre yëpp. mu seet tous les ministres def na Major sax xaw ma sax Major seet na seet Major. seet na xaw ma euh, Nguy Ndiaye. intérieur Aliou ñoom ñëpp ñu recevoir ko. bon ma ne ko bon léegi euh, le ministre de sa papa la demal seeti ko. Mhm. maa ngi à Paris ngi nii mën na ma seede. Mhm. mu dem ñu ne ko dina ko recevoir dina xaw ma tal ma ne ko du bindal lettre nag comme dañ ne dinañ la recevoir duñ la recevoir rek bindal pour preuve. Mhm. demee mu bind lettre d'audience. après la soirée ñu boole ko chef de cabinet xam nga directeur cabinet. moo mu de pare ma ko n'y va man maa ko xam ne fa dem. comme le ministre ci la culture la. sa mu ngi jéem a segg ñu ak ñu mu dul recevoir. il ne faut faut pas partir. Ah, ah, man li ma gis. mooy day segg man li ma gis. parce que ñii dinañ la recevoir. ñii directeur cabinet dinañ recevoir ñii dinañ recevoir kooku. vraiment man ça m'a mal aw jot gu ma sama xarit la. parce que tey taxul ma xam ko. dañu xeexandoo. pour Abdoulaye Wade tegu. waaw mais mais boobu boobu xëy na moo dafa xawoon pauvre waa léegi ministre la quand même. waaw yow li nga wax ne boobu nekkoon ministre léegi c'est quand même ministre. <laughs> yow tooñ nga mën <laughs> yaa ngi fi pànk toujours <laughs> yaa ngi fi pànk toujours yaa ngi fi pànk ma xoolee. Hmm. et puis tamit ma xool artiste bi wax ma ko. waaw xam nga toog ma may ministre bi xanaa xamoo ko. Hmm. man pourtant waaye doo wax moom. Hmm. moom il est star que les ah moom la def la ma nit ñi wax. mais man fa dëggal bu ñëwee ba tey laaju ma ko audience man je suis comme ça. Ah. ba ma xamee ne il peut être. waaw xaw nga tuuti rek tuuti rek man ma téye sa bopp. nee dem ministre gouvernement bi kenn daa ci miin. Mbagnick mm. Ndiaye. Ah. ku dul loolu ministre bu njëkk baak mm. ba ma gisee muy jaayu amul ak laa ko ne teg fële. man soxla ma leen yàlla na yàlla dafa sutura maa ngi mm. sant sa borom. am nga fulla voilà loo tax man. loolu père père loolu loolu nangu naa c'est vrai que latif dafa xaw a yëg tuuti loolu loolu tam dëgg la loolu loolu ñun ñi koy waxal bëri na. léegi <laughs> mu <laughs> donc euh, latif kenn xamagul nag yow ndax da nga duggaat wala doo duggaat waaye daal la nga waxal bëri xaw nga yëg tuuti daal xaw nga aj mbagg yi tuuti daal waaw nga wàccal mbagg yi. léegi euh, euh, père Ouza président Macky Sall woote na dialogue dialogue gi mu wootee. mu euh, comme d'habitude c'est pas la première fois mu woote ko euh, comme d'habitude aussi opposition bi ñuy woowee opposition significante bi euh, significative bi muy ñoom Idda Seck ak ña ñu àndal ñoom nee nañu duñ ca dem lu tax duñ ca dem mooy encore une fois ça manque cruellement de sincérité ñoom dañu sa jàpp sax naxee mbaa mm-hmm. jamono ji nga xam ne surtout euh, euh, kii di Khalifa saal ma nga nungu siin ba tey euh, kële di Karim Wade xañ nañ ko jant bi mm-hmm. mun taf mun mun fexe ba dugg ci réew mi donc loo ma tax ñu ne ñoom yëpp daal yooyu yëpp daal bokk na ci ne pour mm-hmm. toogee président Macky Sall autour daal du lu ñu mën fuñ la moment yow yow ba jàngat la ci ban jàngat bi tam dama bëggoon sax bu leen di woo mu wooyu leen officiellement pas à nekk mu jox la lettre waaw ne la invité naa la. waaw ci jaaroo tel jour tel jour. moom président Macky Sall waaw waaw loolu war a waaw waaw rafet de. man. waaw parce que ay nawleem lañ. waaw ay kilifa lañ tamit. ay kilifa lañ ay nawleem lañ waaw. voilà nit doo ko man Ousa Diall mën nga ma woo ci mbedd eh Ousa ma daw. waaw parce lam daala. waaw waaye ko demandi. waaw say nawle ay Madické. waaw ay mais ils mettent waaw. ak ñëpp sax ñoom ñëpp ñooy Khalifa Sall ak ñëpp mu def leen waaw waaw bind lettre envoyé leen signé par la présidence de la kooku bu fekkee loolu am na dañuy daal di dañuy daal di daal opposition téléphone sax woote loolu yëpp ay souplesse la waaw voilà voilà waaye de à travers la presse bu gars yi bañ woo leen noonu comme ça bu gars yi ah, leen da leen néewal donc man li ma koy demandé foofu rek vraiment encore une fois du ma conseiller am dëgg la waaye des fois daanañ waxtaan yu bari. man sama diggante ak ñoom par téléphone. waaye li koy conseiller rek vraiment jël téléphone am. Mm. ñu xam ne. président de la république woo na Idriss waaw nu génne. koo woo ko jël téléphone woo ko muy égo boobu il faut ñu génne ko léegi suñu biir. def nañu oyof rek. daal la nañu na wala yàlla baax na dëgg la waaw père li la dëgg la waaw waaw dëgg la boo xeex dama yàlla may la ko. waaw da ngay oyofal sa bopp nag waaw da ngay oyofal waaw waaw yónni yónni yónni kii courrier jël téléphone woote rafet waaw comme ni ko yàlla may yàlla may na ko bu ko yàlla may rek ci kaw def grande loolu am na solo loolu am na solo ba keneen ki nga xam ne moom tamit tekkaaralam jaaxal na ñu bari euh, ak euh, ba muy ñëw laata muy ñëw xupp yi mënu xupp muy sa xarit président Macky Sall sunu euh, président Wade sunu maam moom itamit gis nga laata laata élection yi di jot fee la toll di xëppaate ak menacé ak nappaate xuuxalaate dégg nga damay boycotté damay boycotté ba mu ne ba mu ne cëpp ñëw Euh, ci diggante bi gis nga euh, jot na fi jéggi tali euh, dem fee nga xam ne mooy Guinée ba mu ñibbisee ba léegi patt la def ba léegi ma booba léegi kenn dégg ko mu mu wax ne xam nga kooku nag du tekkaaral kooku du yëfu Ablaye Wade donc tekkaaralam mu tekkaaral nag da da di ñi nga xam ne daf leen jaaxal ñoom dañ ne lii day confirmer ne day day firndeel boog entre président Wade ak président Macky Sall daal euh, contact am na déggoo am na petit deal am na ci suuf. Mhm. léegi nag euh, moo waral euh, patt bi président Wade patt xëy na sax suba ca prestation de serment ba. du ñàkk mu toog fa. léegi yow Père Ousa xam gi nga xam président Wade ngeen yàgg jàmmaarloo ci yi ak ci yële ba ban jàngat nga am ci lii. ah dañoon bukki luy dëgg. bukki ni lu ñëpp wax mooy dëgg. waaw. <laughs> comprendre dëgg la ñëpp dañ ne. waaw. ba muy soog ñëw amul woon dil. waaw mais à la fin. Ah, waaw dil am na. dil am na. sa sama benn góor gu mag mu ngi tëngeej. sama mag la. bu Abdoulaye ba dama ah. pënd rek la. waaw il faut ngeen xam góor gi góor gi demul fenn. góor gi dil na. sama benn mag wax na ma ko tëngeej day day tap à l'œil rek. waaw yuuxu ni bruit. yuuxu bruit bruit bruit ne li mu dilee yàgg na. waaw yàgg na ah comme nag mag la. c'est vraiment liggéey ni liggéey boo xam ne vraiment dama ko reconnaître mm-hmm. malgré d'accord ma moom waaye liggéey ni liggéey boo xam ne bii vraiment dama ko nangul ah duñ ci mën wax rek <laughs> lu dul yàlla jàmm yàgg rek moom ah ah xëy na mu ngi ci dëggam pour fexe ba doo ba doomam génn ci ndugg siin mm-hmm, mm-hmm. ah dégg naa ko toog ma fexe ba xalifa sax génn ci ndugg siin fekkee dil bi lool la kañ yàlla na yàlla dafa sa ñëpp génn rek waaw mais daal comme mag la daal vraiment sañ ma wax dara ci góor goo xam ne yàlla may na da ko may waaw dafa dafa may ko may loolu yàgg naa dégg ñu koy wax yii dafa mayu yàlla mam ah, na may yàlla parce que uh-huh. euh, encore toujours j'étais à bi ñuy inauguré aéroport bi mm-hmm. dama xool ree ñi fa nekk waaw ànd ak di inauguré mm. ba ñuy def aéroport bi dañ taxaw ne ma ousa lii du dëgg mm-hmm. euh, éléphant blanc la mm-hmm. fi aéroport mu du fi di ma wax seen tur jaru ko xam naa fi ngay waxee. ñoom te ñoom ñëpp. waaw ma gis ñuy inauguré aéroport bi. wallaay ndeysaan wallaay àddina moom ma ne politique garaaw na fekk maa ngi toog di ma koy wax samay sët. waaw ñoo ma doon wax ne. aéroport moom am fii boo demee aéroport bi xam ne góor gi liggéey na. na xam kooku nag ndeysaan dama ko jox respect lu mu def man dama jox ko cër guddi léeg guddi léeg yëpp man sérieusement c'est un vieux qu'on adore. waaw on le porte dans notre cœur. voilà voilà Ablaye loolu. <laughs> nan ko bëgg léegi père ki nga xam ne euh, quand même mooy euh, wax naa la ko léegi euh, Khalifa Sall junj nga ko. nee nga Khalifa Sall sa xarit la. nga ni président Macky Sall sànq wax nga ko nee nga président Macky Sall dafa sa xarit ma nga ma nga ma nga prison dégg naa sax sama rakk jooju aji. Adiouza euh, euh, euh, muy muy saa bu woyee ndeysaan fàttaliku digganteem ak xalifa ak soxnaam loolu yëpp nag di kóllëre goo xam ne tàmm ñu ko tamit ci suñu waykat yi mm-hmm. waa ndax man gis mm-hmm. bëgg dem gis naa ñoo xam ne euh, ñoo àndaloon démb Ablaye Wade doon ko way tey ñi ngi ànd ak président Macky Sall suba tam bu fu jógee noonu waa waaw yooyu yëpp nag daal ci ay mm-hmm. wàllu valeur du lu ñuy lu mais aju kontaan naa ba ma déggee léeg-léeg bu bërëxal xalifa euh, sama xol sedd na si ma ma ma dellusiwaat ci laaj la euh, président Macky Sall Euh, ku ku dégg ni nga waxee comprendre ne euh, am nga ci moom daal xidma euh, am nga ci moom daal benn yëg-yëg bu solo. Mhm. ci moom. Mhm. nga bëgg ko nag mu jël ki nga bëgg dugal ko ci prison bi. Mhm, ah parce que mun kenn mënut a weddi nag ne. bu neexoon président Macky Sall Khalifa Sall. du ah, nekk président am déet. waaw léegi yow foofu yow ban taxawaay nga fay am. taxaw naa fi taxawaat bu mu mënta def def naa ko. man mi wax yow. jox naa leen message. waxtaan ak ñi ko jege. parce que anecdote laa lay indi dama dem kii ndeysaan nu ñu tudditi sax kii nekk du ambassade kii nekk Paris suñu kii bi. consul bi ah, ah, consul bi keroog damaa tiit consul. ma dem doon la nuyu ji. waaw ah. kenn la man daal. ku ku ku laa fekk. Mhm. Euh, fàtte turam du ma wax boo. xam ne waaw <laughs> ma ñëw mais conseil mhm. man ragal naa fa affaire yi Khalifa Sall. conseil yi xëcc ci étiquette. Mhm. waaye itam waaye comme di nga miinee madame Faye Sall madame mm-hmm. doo ko dimbali mu génn xalifa ma ne ko mm-hmm. ah bon yéen consul Sénégal yéen wax loolu mm-hmm. ak ñeneen ñu bari dama dégg donc mais man sama kéemtalaay kattan def naa ko way naa saraxu naa ndax naa li ma xale bi doon laaj laaj léegi 30 août laa ko tudd woon mooy bi ñuy def jugement bi sañ war ko bàyyi bàyyi ba ma naan ko maa ngi sukk di raam nga maa ngi maa ngi leen sukkal président maa ngi sukk di raam da nga jéggal xalifa jëmbal ak yërmande nga jéggal dama ko way comprendre nga way bàyyi fi dama way bàyyi fi pour mu jéggal waaye xam mhm. le président a ses raisons que la raison ne connaît pas mhm. des fois avec ma réflexion avec ma sagesse parce que je suis devenu <laughs> <laughs> c'est la sagesse maintenant c'est l'âge mhm. ma est-ce que c'était pas de bonne guerre bonne guerre boo xam ne de bonne guerre politicienne comprendre li mu bëgg a. waaw waaw mooy ku njëkk sa morom. waaw doo a may dara. waaw ku ku sa morom duma. duma waaw duma na ko nag. waaw duma na ko ba pare nag. et puis waaw simbi na ko jël na yëppam. waaw ba mu koy jàpp. dama leen waxoon billahi loolu ba gars yi réfléchir di ma leen wax. ne mm-hmm. jarul sax ngeen di xeex ak opposition parce que l'opposition est hétérogène. Mm-hmm. jarul ngeen di jàpp xalifa. Mm-hmm. parce que pour man ni ma gisoon mënuñu woon wax naa ko ci way wi. jàpp gagné bàyyi gagné. mu mën ci way wi. waaw jaru ko woon comme nag léegi yàlla def sutura vraiment li may ñaan encore à travers votre euh, émission formidable émission macha allah mhm. maa ngi ñaan le président de la République ñaanuma le président République vraiment xalifa mu bàyyi ko rek ko li mu bëggoon yàlla may na ko waaw et c'était très difficile pour mu am deuxième mandat man ah, xamoon naa ah, ah, raam na nag waaw raam na ah raam na <laughs> <laughs> donc comme yàlla def yombul yombul woon man je savais. yombul woon waaw lijjanti na ba dugg waaw man bi may jël sama décision xamoon na ne yombul woon waaw yombul woon yombul woon waaw yaa ngi dégg donc ngeen bu ko yàlla mu defee possible na. waaw possible na na waaw waaw daal. na man de man de fa bu ma déggoo li ma ko yàgg a wax rek. rek. waaw na woote jàmm ko presque. waaw ay moromam. une femme sénégalaise pure et dure nga jëkke ci doon président jaaga ja doon président république boo doon bunt pare sa cuuraay bi gilli xeeñ waaw mais ko ko yàlla amuñu ko puis elle a contribué mm. man seen naa sama mouvement bi xale yi ñii sama mouvement soixante dix pour cent jigéen ñi dañ moo tax ñu voté laa jël xale yaa ngi nii dafa soppalu. Euh, euh, premier dame ñëpp moo tax ñu voté. dafa soppalu loolu ma ne ko donc boo gagné 50 pour cent. waaw moom moom 50 pour cent. dëgg la waaye comme na bàyyi na bàyyi na bàyyi woote jàmm ñëpp kii fii. calme quoi mu neex ñëpp di fulaa daal ñu jàll ci leneen. <laughs> mais père débat débat débat troisième bi nga xam ne moom tamit euh, yaa ngi koy dégg ma koy dégg <laughs> ah sax président Macky Sall sañ a fee force troisième mandat nga yaakaar. bi ma liiraate affaire yi. waaw au fond du force sax. Ah. du forcer. noo ko jàngatee yow. Euh, troisième mandat. Mm. bi ma liiree article vingt sept. Mm. j'ai compris. Ah. que am na porox ndol la. pardon gu fa ne waaw waaw porox ndol gu googu boo seetla article bi mu ngi bind cinq ans yi. boo ñu ñu a mm. am une idée mm-hmm. politicienne mm-hmm. wala partisane foofu lañ koy teg. waaw ne cinq ans yi sept ans yi bokk ci. dañ ne mandat de cinq ans. Mm. day def mandat de cinq ans duñ ko def deux fois. Mm-hmm. boo dee une idée laa wax politicienne. waaw ou bien idée partisane. mais boo amee une idée républicaine. du ko def par ndol. waa ba pare aussi père euh, ndax ndax mën na mën def ma Macky Sall ci même réew nga xam ne danoo mu valeur bëgg ko. Ah, te kaddu euh, euh, góor yu bari. muy ñu mel na yow mel na man suñu kàddu moo ñu tënk euh, est ce que war ko mën a def war ko mën a parce que Porox Ndol boobu moom moo ko créé waaw kañ bàyyi waaw waaw moom président Macky Sall moo moo créé Porox Ndol léegi Porox Ndol boobu mu créé est ce que war naa ko mën a def war président ma Sall est ce que war na ko mën a moralement ak euh, éthique buñ buñu taxee moral ak éthique man war na ko mën dugal fi mu li may wax nii sax fi ma jëm moo gën a sori parce que xam nga boo jàngat élection yi passé musul am ci Sénégal. Mm-hmm. élection ethnique. Mm-hmm. régionaliste. waaw confrérique. lii yëpp prémisse. Mm-hmm. catastrophe la. waaw duma la maa ngi fàtte. al amin. al amin ñam si yàlla ñam si ay leeram ci barke alxuraan bi mu juddoo al alxuraan bi mu nàmp. mais dafa lu mu waxoon un jour. mu sa guerre civile. yaa ngi ko bu baax ba gars yi di ko critiquer mm. dafa teel dafa teel mais xam nga mag ñooñu. dañu wax loo xam day ñëw 10 ans. wala 20 ans mais man j'ai compris. Mm-hmm. que ne vu élection yu jógee. waaw ethnicité. régionalisme confrérie musul am Sénégal donc. dinaa wax fi xaw ma dinaa ko fekk du ma ko fekkee yàlla moo xam. parce que je fais de mais benn affaire lay wax. Mm. man de prémisse. Mm. d'une guerre civile troisième mandat laa ko gise pare waxaat ko ca kaw. prémisse. Ah. d'une guerre civile. Hmm. bu président ne day def troisième mandat. man sama analyse. géopolitique ba ma am. Mhm. foofu laa ko teg. parce que nag réew mi fi dafa mel bombe à moo fi ne. voilà def benn élection confrérique. déedéet wala régionaliste wala hmm. ethnicité. Hmm. ethnicité. ethnicisme. waaw mosu ko def. bii dafa am. sama ni mu dëkk banlieue lu bari sëñ moo ko wax ci plateau. mais mhm. dégg naa lu bari. Mhm. gis naa lu bari mais sëñ moo wax plateau. donc man ce que je demande au président. Mhm. pour sauver ce pays. encore une fois moo lu kenn amul. understand mu am lu am kenn amul juddoo jànge Sénégal màgge ah, fii doon xale lekk ci palaasaan bi lekk ci baxal mi ku caabi maq suuf si waaw naan si cere waaw naan si cere ndox yooyu yëpp mu ngoog yàlla def la président lu ko yàlla may jafe na déedéet dëgg la yaa ngi may dégg pare woon tey fii lay toog du dina wut ak Abdoulaye Wade dina wut ak fii lay toog voilà moom jëge siyaare donc ban vraiment par mon expérience mhm. ñoom xëy na boo politicien wala boo dee artiste ñu importance man leen lu ma sox mais parce que gars yi ko yàlla defoon la ma sutura parce que géopolitique bi ma koy xool mais xam naa ne man yal mhm. nañ yàlla defa sutura waaye troisième mandat moo gën a doon la chose la plus dangereuse. nucléaire la boobu nucléaire la. nucléaire la waaw c'est sûr que. dëgg xaw ma nu mu ñuy def de. waaye man de bu doon man bi dex yi du ma topp xam naa ne ay transhumants ay waa na rek. waaw léeg-léeg ah, waaw gis naa leen. waaw waaw gis naa leen. ñoo tax mu naan ko président foncel mun nga ko dara du yëngatu xam nga koy naxee. Sénégal dara du yëngatu. waaw bii nag bii bii. koy balaat Ablaye Wade waaw. suñu góor boobu c'est gën a grave parce que Abdoulaye Wade am lu ñu ko bii ay jeunes la ni ñoom. dañuy gars yi dañuy jaamaaloo. nee naa la bii baax ah, c'est vrai Paa Wade gars la. mais bii. bii moom ay ndaw la. man de bu doon man li ko yàlla may daal li yàlla may. man daal boo doon moom du ma xalaat dem dem danaa génne samay partisans sax. problème bu troisième mandat troisième mandat dëgg la. dëgg la loolu laa koy ñaan non non li nga wax nii li nga wax nii dafa rëy li nga wax nii dafa rëy. Euh, beneen bi mooy. Euh, dama la bëgg a jox euh, euh, dama la bëgg a jox ñaari nit émission baa ngi dem jotu neen la ci des bareetul. waaw daay 10 minutes donc yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu lem ko jàll. <laughs> mooy kii di sa Seck yow mi nga xam ne dama koy waxee lu tax nga xam géopolitique bi lu tax. macha allah man may soxla sa analyse fu ñu toll nii. ndax mënoon naa fi mu nuy muy muy piis ma Macky a ba tey ci remaniement moo tax léegi dootu dootu invité tant tant amul tant asu asu ma réeloo ba gars yi dama sonn nii tant gouvernement président Macky a jot ñëpp ñu ngi woote. <laughs> ministre yi nga xam la a jot ñëpp ñu maa ngi nii. donc man tant ministre gouvernement bes tant que jéem doot ma jël oh. di benn oh. ñii laa jël yéen sedd donc moo tax ma ni la euh, ñaar ñii Idrissa Seck Euh, laa bëgg ndax yow père euh, euh, macha allah Abdou Diouf Ablaye Wade lépp sa kanam la yàlla na yàlla na yàlla na la yàlla bàyyi ak sunu kanam ba nga fekk waat di yeneen yeneen yeneen président ñu toog fii ah, encore <laughs> <laughs> di di di ko analyser kon Idrissa Seck ban avenir politique nga ko gisal ci ci kàddu yu gàtt enfin Idrissa c'est un grand bâtisseur waaw tumal na ba c'est un grand bâtisseur waaw am na parce que la mu def Thiès rek c'est mm. un grand bâtisseur mais man je savais que mm. lu jàll noo ko xamee non afam benn femme bu ma wooyee depuis Paris ne ma lecture politique bi nga def dama leen ko tegaloon mm-hmm. nii laan ko teg tegaloon mm-hmm. ne Macky dina ñëw Idrissa Seck dina ca topp mm-hmm. Sonko dina topp loolu mooy dama lecture politique boobu parce que boo xoolee lecture politique bi ba dañ xam nga lan la gars yi d'accordutul mu agito nag ba dëriñu ñu def coalition mois des liñ dal ci Ablaye Wade euh, moom lañ daloon ci Ablaye ñu jël fi Ablaye Wade. Mm-hmm. yaa ma dégg léegi coalition gars yi duñ ci toppaat donc Idrissa fu mu toll nii léegi li Souleymane Ndeye sama xarit Souleymane Ndiaye mooy loolu dese na ko il n'a que cinquante na ko lu bari am na temps waaw am na temps mais nag na toppatoo nag toog laay wax parce am na militant yu ma xam samay mbokk lañ mm-hmm. toog Thiès defar partem mm-hmm. préparé wu et non pas à un an d'élection nga su nga ñëw di kër ci kër dëgg la damay waxtaan askan wi waaw. dëgg voilà mooy li nga wax rek. non de de relation action euh, euh, askan wi. interpersonnel bi nay dox. voilà waaw na am interaction na loolu lay faiblesse am. waaw loolu lay faiblesse waaw a aj mag tuuti. waaw xam naa leen. waaw waaw dëgg xam nga leen yaa leen xam <laughs> xam nga gars yi dama leen yar yaa ay satu gis nga dinaa la wax waatal fii sax jayuma ma ken waaye kii li koy yàlla may rek mooy li ma wax rek waaw chance bu ma am mooy kii mu àndal la. mais ñoom ñoom ñëpp ay katu mbagg bu ngeen nit duñ la faale. mais ki ne faal fii boo diisee diig. voilà le problème boo yefee naa. or que par contre ku demee ne Khalifa Sall dafa oyofoon. dafa oyofoon ne sax Khalifa Sall dafa oyofoon ko euh, conseil municipal mu demaat doyen kaay ko bokk ci mën a waaj am nga xel. dëgg la dëgg la oyof sa diisul président Macky Sall diisul waaw diisul diisul man nee naa la teet naa ko muy joué pénalty non non xamoo dara non président Macky Sall diisul loolu diisul kooku moom je le reconnais man xam naa diisul diisul diisul kooku moom fii ku fi diis euh, euh, euh, <laughs> Sonko <laughs> Sonko Sonko mos naa nga dama ko ree ba sonn seetaan naa ko ñaari yoon ba ñett <laughs> nga ni yow li nga ragal ci Sonko mooy buñ ko falee màggal Touba boobu merci nen de tuuti gars yi dañu comprendre man. Ferro rëy na de. déedéet xam nga man euh. dama doon waxtaan ak ay nit. ñoom ma doon leen wax possibilité Sonko. waaw mu amul benn lébu ak benn moodu moodu. waaw lébu bi ma waaw Oussa man xam mooy kii baaka fale gàmmu Tiwaan dootu amati. <laughs> lébu bi wax moodu moodu bi. ne ma Oustaz maa ngi xamal loo xam ne kii kenn màggul suba dégg nga maam sëriñ doo ci am ne màgg kon kenn du ko fal loolu laa nettali gars yi maa ko wax ah. loolu ma indi woon imbroglio bi ñu bari ah. saaga parce ah. que dama doon nettali la la ñee wax la ma ñee mais mais mais yow Sonko ci boppam dégg naa nga radical troisième fois radical so yow gis ne euh, euh, peut-être am na war na am yu mu xaw a euh, moom i tamit xaw a euh, daal oyofal tuuti daal. ci waaw ci ay yëfam ah. mais c'est que c'est le c'est boo xam ne. waaw moom la Afrique soxla. Mm-hmm, moom Sonko waaw la Afrique soxla. Ah. parce que li mu woote la Sékou Touré woote woon. Euh, a ah, li nga wax rëy na de panafricaniste ak Sékou Touré fi nga dugal réer fi fi nga dugal baax na de. waaw ñëpp. foofu rëy na idée mais c'est que pour le lii ñam troisième vois bi képp gëm Afrique je ne parle pas du Sénégal Sénégal tuuti pour def une pour mener cette révolution mm. parce que euh, micro état la. Mm-hmm. mais l' Afrique de l' mm-hmm. bu ñu amoon idéologie boobu tubaab bi dootuñu yabati. waaw loolu xam naa ci mm. Sonko. waxuma nag Sonko ci boppam mais vision bi je parle de la vision. waaw waaw à différencier. Sonko. waaw moom différence radicale la def ak ñoom. donc euh, je pense bien c' est l' waaw bu fekkente ne euh, li mu dëgg la ci moom. ah ah loolu vision bi laa wax waxuma lom. mais vision bi voie bi mu jël je suis parce que nit ñi mën nañu ba pare change. gis mm, na nekk parce que mën nekk tam nga ñëw ne da ay ay paa ñoo fi nekk doon ñu gëm loolu dara nga ne ñoo xaaral ma ñëw boo nekkee naandite xale naandikat nga ne ñoo xaaral ma dóor fee pour am jeunesse bi ak yooyu yooyu na fekk ba nekk dëgg si moom loolu <laughs> <laughs> loolu père moo fi eh, moo fi yàgg nekk mais mais mais père président Macky Sall moom itamit euh, euh, ñu bëri euh, en tout cas askan wi lépp waxuma la nag deux trois partisans yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam di ko déy ñëpp dañu jàpp ne bii mooy dernier mandat woom léegi nag am tamit ci camp woom ay ay ay nit ñoo xam ne ñu ngi commencé préparé wu nànk uh-huh. dégg nga pour toog toog dauphin xam nga pour vraiment bu président Macky Sall euh, euh, noppalu jee fee ci Mermoz ñoom ñu ñu ñu mën a daagu ci pale bi léegi yow euh, ci sa kii sax sa xam-xam paper ak sa analyse yow kan nga gis moo xam ci ci ci président Macky Sall président Macky Sall ña mu àndal nii wala boog peut-être je sais pas benn benn ban ban jeune daal nga mën a gis koo xam ne dëgg-dëgg war naa président Macky Sall war na ko mën a jox lenge yi. man ko ndànk daal. pour euh, changer. waaw ci ñoom seen biir ku ñu koy fal. waaw ça dépend du peuple. waaw mais boo doon ñoom Mimi laay teg. kan Mimi Touré. Mimi Touré ah. pourquoi pour la première fois. bu fekkee day jàll na. am une présidente mosuñu ko am depuis les indépendances. waaw waaw waaw mais si Sénégal pare na pour am. waaw waaw yooyu yëpp rek. mais gis naa ne. am na am am na fit bi xel bi am na xel mi jàng na. jàng na sa gëm na. Mm-hmm.

pour wax pour changer rek. waaw pour changer man xam man je suis féministe. waaw man man ma bëgg la paire man duñu bëgg a. maa ngi féministe dëgg la yaa ko dëgg donc mm-hmm. jigéen quand même seet. waaw ñu xool pour ñu changer daal. mu mu changer jigéen ji ñëw yéeg. waaw ñu xool ñëw yéeg. changer diriger ñu xool ko am na premier ministre. te juróomi at la fi def ñu xool ñu xool bu doxee ba bu doxulee. ci partem laa wax xëy na tam ñeneen am na ñeneen. waaye ci partem la affaire sa moom partem il faut defaraat ko. il faut mu defar dafa defaraat parce que euh, ni ñu ko tuddati l'armée euh, euh, mexicaine. waaw waaw moom la am. <laughs> armée mexicaine bëri ay capitaine ak caporal ak ñoom ñëpp ay commandant ak yéen ku nekk ñëpp nag da ci war a génn. <laughs> waaw dëgg la ñii war di saaga nit ñeek am na ci ay patron ay ay yoo xam ne dañuy def lu leen neex ci dëkk man gis naa du président da ci a jóg nag mm. la am il faut mu joxe le bon exemple duma bi ñenn ñi dëgg la waa mm-hmm. nekk la ñuy def lu nekk la ñuy wax n'importe def dëgg la xam nga man ah def loolu sa ah. def la def loolu nag président war na ci jóg man loolu lay ñaan vraiment à travers votre émission là dinaa ci jaar di wax sama doléance yooyu yëpp. bien sûr je suis très wax waxaaleel ma loolu am na solo <laughs> <laughs> léegi père ñaari questions yii la ñu tëjee. ma ma ma ma ñëw ak yow ci euh, wax naa la ko sànq nee naa euh, ci euh, Sénégal daal en tout cas ci sama at yu néew yi ma yor ak yi ma jàngat bu ndaw ba ma gis daal defe naa ni yow yaa jiite. yaa précurseur daal en tout cas ci li ñu tuddee artiste engagé daal defe naa ah bu mel na yow daal Euh, bëreetu fi <laughs> te yaa ko fi njëkk a def léegi nag boo xoolee campagne bii ñu weesu euh, comme ni ma waxee rek gis naa ko tamit amoon na fi du du c'est pas original ndax amoon na fi ci mhm. temps Ablaye Wade ay groupe artistes dajaloo euh, daana ñoom ak Sall lañuy lañuy la ñuy voteel di di jéem a dóor noonu xam nga <laughs> daal di créé waar ay single kii seen seen way yooyu wayal kii président Macky Sall yëpp gis nañ ko fi léegi man dama xamul est-ce que engagement artiste père est-ce que dafa aaju ci nga ñëw far fenn carrément ne moom moom ngay ànd sampal ko sampal ko raayu sampal ko euh, euh, euh, nu ñu ko médaille wala boog dafa aaju ci ñëw taxawaay taxawaay askan wi. Mhm. di di am jàngat am am benn xam na laa mun waxee ci olof. waaw tu comprends l'idée mhm. donc vraiment am benn vision manichéenne ci. Euh, waaw nu ñu ko doxalee waaw engagement artiste vraiment père naka lañ ko mën a na xaymawee waaw xam nga li ñu ko mën a xaymawee ça dépend par exemple xam nga ndeysaan dafa un jour benn waay wax ma ko jamono Ablaye bu dem le peuple est-ce que Ouza tué le peuple ma naan le peuple mm-hmm. analyse ba ma ko defaat dama ko jàngal dafa da ngay defa yaay le peuple or que doo le peuple c'est vrai dafa da nga le a dit mm. or que tu n'es pas le peuple dëgg la le peuple ñu jógee leneen la ñuy def waaw ndeysaan mm-hmm. ah donc artistes yooyu ñu ngi seen raay man li ma wax dëgg la rek mm-hmm. ku nekk li nga gëm waaw ñu am na benn waay bu ma wax ne Ouza. pourquoi gars yi du ñu woowee engagement man ko non non non c'est pas une obligation. Mhm. bu neexee je t'aime mhm. ñoom loolu lañu gis. yaa may dégg. Mhm. waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo jël engagement dañu def engagement engagement bi tam na doon lu franc. waaw lu sincère lu sincère. waaw bëgguma ba dernière minute. nga ñëw wala pour nga bokk ci. waaw ak tam bu daanoo. bu daanoo nga nga nga ànd ak kenn ku xew. xoolal du Ndiaye Mbengue. ku ko jiitu ci Macky Sall amul. Souleymane Faye nag. Souleymane Faye. mais déggu leen gars yi jël nañ seen place. waaw wallaay c'est vrai. ma affaire def na nga lan lañu du Ndiaye. waaw du Ndiaye ma wax benn attaaya. gars yi amu fit way Macky Sall mu ne leen dama way ba géej gëm président Macky kenn gamu ko woon. voilà ñoom ñu def loolu. ma gis tey en rade. maa ngi gis keroog ñu yóbbu invité xaw ma fan. jox ma ko micro ça m'a fait mal. oui dëgg ma def na ma Abdoulaye def war ñu koo def kooku xam nga Abdoulaye la ma defoon. ma ànd ak moom lu ne. waaw waaw mais xam nga nag yow yow tam da doo dóor yi métti. déedéet mu war ma ah, waaye warul Sénégal <laughs> sa baay boobu war na ma Ousa. waaye warul Sénégal waaw comprendre nga. loolu la bëgg a wax rek. parce que man noonu laa gis àdduna. mooy li ma la wax léegi ci projet yi projet yi taxul. Euh, euh, euh, kenn deful ma projet man da damay contre un président. non non du ma genre boobu. voilà la. Mhm. mais bu defaree ci biir réew mi da ngay def différence entre ta personne. ak le peuple c'est important bu defaree ma d'accord. c'est def loolu damay gërëm toujours toujours Ablaye ma non c'est parce que. yi dañu mën socialiste ans. changer dëkk bi. il faut il faut le reconnaître. il faut le reconnaître il faut le reconnaître. ñoom seen bopp reconnaître nañ ko merci beaucoup. mais mais mais mais père maa ma foofu ñaari minutes léegi euh, li nga xam ne mooy euh, euh, politique culturelle ah bii ne 30 secondes rek politique culturelle bi su ma ñëwee ci yow sa jàngat ba tey en tant qu'artiste ci de Diouf à Macky Sall kan nga jàpp na mooy artiste mooy mooy président bu gën a ñoŋal. Euh, euh, statut artiste. ah kooku nag je pense bien il y avait Senghor. waaw yow Abdou Diouf. ah fàttali naa Senghor sax walaay <laughs> c'est normal de <laughs> cette génération. Senghor yow Senghor yow aimait beaucoup la culture. waaw femme nue femme noire vêtue de ta couleur qui est gris. mais waaye <laughs> Senghor wax loolu. Mhm. Senghor gëmoon na culture mais kii nag il est trop plutôt technicien. waaw man critiqué naa ko. président Macky Sall politique culturelle am d' accord ma ceeg moom. waaw ba mu commencé ba tey bis bu wax leen ko. ne d' accord ma ceeg ñoom. parce que j'ai des artistes yoo xam ne. Euh, comment dirais-je ndeysaan sonn barke dem ak benn artiste comédien mm. buy ñaan ndimbal waaw j'ai vu ko kooku grand artiste mais ñooñu il faut ku demee ñun ñun ñi xam ne ay doyen mm. solu ci ñoom dara ñu ngi sant suñu borom mm. xam li ma wax ñu ngi sant suñu borom donc ñu dem ba ñu waxul ñu jox leen tegtal du ma li teg te tegtal dimbali les artistes. d' accord d' accord sama âge ñu ci am. maa ngi sant sama borom. maa ngi sant bu baax. waa am na ñoo xam ne ñi oh, eh, eh, ci xam dañu mën a jëmbali mag ñi xam ne sont en rade. c'est important c'est important. xam nga kontaan kontaan. ndeysaan am na solo. jeex na waaye léegi nag ñoom ndeysaan dañuy sont en rade. waay et c'est pas hmm. c'est pas bon léegi léegi léegi père euh, tam 30 Euh, mooy euh, génération bu euh, artistes yu bees yi yow boo ma doon wax rek benn force bu ñu am ak benn faiblesse bu ñu am génération artistes yu bees yi nag sa doom sama rakk mi ngi ci ajuza <laughs> waaye ay Wally Seck nga xam tey jii aujourd'hui mooy porte étendardu wala ba porte voix cette cette génération là luy seen force ak luy seen faiblesse ci benn benn yàlla moo mel noonu vidéo bu mm-hmm. koy taat bu koy sànni kenn mun ci dara mm-hmm. kooku yàlla ko defal loolu. Mm-hmm. Euh, li bu jël seen force nag mooy la com. Mm-hmm. waaw waaw ak réseaux sociaux yi. <laughs> Oh, mooy com bi rek waaw dëgg la. seen force yëpp. waaw i communique bien ñëpp ndeysaan. buzz set ak dañ mën way nag. waaw dañ mën way aussi. il faut reconnaître ça. mais seen faiblesse la euh, euh, na seen faiblesse c'est la jeunesse. waaw seen faiblesse. benn côté immaturité waaw di way sëriñ si di ko fecc ci kaw scène bi. waaw waaw Xaadimu Rasuul Eh, ani waa kër sëñ Touba ring ring ani waa kër Alaaji Maalik kooku maa ngi ñaan sama fils sama doom yi rek man tëgg naa xaadimoo sa kenn gisu ci sëñ Touba kenn gisu ci jumaay Touba nañ dem seeti kilibu xaadimoo defuma ko ci uh-huh. lumière laa wade comprendre nga donc bu ñu mënatee déjee ko demee nii Xaadimu Rasuul uh-huh. wala sama maam ji Alaaji Maalik wala uh-huh. kii rek figure religieuse damay ñaan xale rek ñu génn ci image parce que doox Alaaji Malick naan rëg rëg rëg rëg mm-hmm. ñii fii non c'est pas bon mm-hmm. man damay coupé sama am na mm-hmm. aujourd'hui mos naa ca interprété eh, du moins benn benn animateur dama ko woo du ma wax trop ne ko boy lu waroo teg lii Alaaji ma ñu sol seeni becco ani waa kër Limaamu Laay ñuy sol seen becco ci c'est pas joli kooku nag dama ci bëgg ñaan rek mm. moo tax ñu ngi critiqué sa musique dafa noble parce que lépp musique la tout est musique. bu mhm. may critiquer gars yi tout est musique. dinaa ko wax tey xamul ne nodd gi sax musique la. yàlla wàcc na diine l'islam mhm. ci ñu dàqawee ci àdduna mooy les arabes. pour que ñu mën a porter culture bi. parce que bu booy bi neexul woon kenn ko jël. Mhm. comprendre nga bu baax dëggal arab yi nodd. walaay ndeysaan dëggal euh, daw. mélodie beeg bi yàlla mm-hmm. moo def loolu culture. Mm-hmm. c' est que bu nekk mm-hmm. am na côté négatif. avocat am na côté négatif. je me rappelle bi ñu nekkee xale. Euh, suñu pap dañu bu leen doon douanier de. parce que day dugg safara yéen a boo leen barki laa ko bi tam am na côté négatif. xëy na bari na ci. waaye nag buñ tam. Mm-hmm. ne bokkuñ ci diine ji. bokkuñ ci diine déedéet. waaw kooku d' ma ak ñoom soo ko naa cee def débat. te te te père li nga def am solo léegi nag père <laughs> sa sa émission jeex na léegi nag euh, euh, man bala ngaa tàggatoo euh, dafa am loo xam ne dama ko namm si yow. déjà xamatuma xaw ma da nga bàyyi way xaw ma bàyyi nga <laughs> ma bëgg ñaa dégg nga way mais vraiment ku mel ne yow du la invité fii. ñu war a tàggatoo euh, euh, du ma la dégg nga def sax dara xamatuma mais père est-ce que mënatu nga way sax dara mënatuma ma nga kii tuuti sax xam nga yow nee naa yow boo nee boo euh, ba tey dafay neex <laughs> waaw waaw comme ma yëkkati ma sax ñoom jatu njaay ñi xam nga kii sama nen bii ndeysaan sax ne père Ouza day way moom ndax moom pour moom rek nga politicien nga waaw waaw ñëpp nag loolu lañ foog moo tax ma ne père est-ce que man père pour nga prouver ñoom jatu njaay ñi yow mi ba yaa ngi mun way fa nga nekkoon ba tey yaa ngi fa yëkkati sa waajur bàyyee boo mujjee mujjee xoo bu la sa xarit bàyyee boo mujjee mujjee xoo waaye soo nobee xal bu rafet soo nobee soo demee ma wéetoo eh. kooku sama mos boo xam ne dama ne toujours kii bu doon diine lislaam may dem àllaxi moom lañu accompagner ah, mais diine lislaam tax mënuma ko def waaw ah, kooku sama ah, ñu bëri na saxar gi yuuxoo mais man nobel mooy sama morceau ab buñ ko daan joué daf may jàpp xam ne du ma yeggali morceau bi oh, ba ma commencé daanu oh, mu jàpp ba doo dugal ma ci coulisse bi waaw sama dafa ah, balaa parce que c'était ma mes vingt ans ah dafa noonu àdd maa ko moom rek ah. te ma dara rek àdd moom ma doon nax loolu ma dégloo ah, Nobel waaw c'est très fort c'est trop fort toujours toujours man bu du woon diine l'islam ba may ñibbi moom loolu la mel nekk. merci a. non enfin danaa woyatu mais sur le plan débat. Mm. way yooyu laay woy. série mm. euh, euh, série blanche. série ko fii. mais Sénégal comprendre ñu woon loolu. mooy affaire Kadhafi ni ñu ko reyee. Kadhafi ni ñu ko reyee sama xam ne ñoom Sarkozy. Mm. affaire Mali bi am barki démb. ñu ngi naan dañuy yóbbu gars yi CPI. waaw sa kooku du daral du dul Sarkozy. avec Tony Blair. ñoom la ñoo toj Libye. international waaw xam ñoo toj li bi ñoom lañu war a tey CPI lu xew tey ci Mali gi la mais au moins Soro euh, euh, ñoom Soro ak Bob Gbagbo au moins liberté provisoire waaw c'est ça voilà là je d'accord je suis très content parce que c'est panafricaniste Gbagbo am naa ay doom ivoirien samay taw ay ivoirien la ba ñu wate dama leen wateel mhm. ñu jëmati watal man nag c'est lui le panafricaniste ndeysaan gis nga àdduna merci beaucoup sama mouvement bi. waaw mouvement jot na. <laughs> Mm. jot na Africa. waaw di jëm ñoom professeur Wage Jean. Médiké mm. Astou. Mm-hmm. Mimi di waa Yaraax. sama fan kër Kër Massar. Tëngéej daal. di gërëm waa Paris. parce que diaspora bi. waaw ma. bi ñu dem élection yi offrir nañ ma combien de d' pour rien que dem opposition. mais j'ai nee na non non non waaw man loolu du ay cinquante mille du jaaxal man je suis pas là pour ay cinquante mille conviction la sama vie. jël na engagement respecté naa ko. léegi sama jaan wàccoon na ak ñoom. merci <laughs> alors père père Ouza la woon ñu koy gërëm di ko sant euh, wax la plateau bi yow yaa ko moom. nee euh, euh, man ma soxla dama lay woo. yow it ba ma soxlaa moom moo dama lay woo toujours <laughs> parce que la defal loolu. waaw et puis vous n'avez pas changé woo. comme bii nga jëfandikoo vous n'avez pas changé woo. non je je incapable de changer. waaw mu ngoog et puis moi je t'adore xam nga wax naa la nee naa vraiment boo soxlaa ñëpp ñàkk. dëkk jërëjëf jërëjëf wan nga ma ko de wan nga ma ko la grande. la grande kontaan naa trop. vraiment ça me plaisir que toi tu aimes mon émission. dama dikk mu ne ma ma ne ko lu ma mu ngi ne li di ma déglu <laughs> mu ne waaw loolu dëgg la ñun nag ay waalo waalo la benn kàddu la ñu am ñun loolu lañ koy def kontaan Amado waaw Amado ngi ne moom moom sax laa ci moom laa ñëw sama rak sama rak jooju eh, ma koy gërëm bu baax di nga sant eh, tey moo def make up bi eh, glam style by Mado Moussa Sène tegal ma rek yëfu Mado yi fii ci suuf sama rak jooju di ànd ak man dara ñaawul mu àndal ma jàppale ma moom itamit di bàyyi xel bu baax Marie Gueye moom it mooy coordonné sama émission yi ma nga foofu production Joséphine Mbuub moo jiite euh, production ba Chérif Dia naka noonu ci euh, ba tey coordonnateur u euh, face to face naka noonu tamit xale yi ma jàkkaarloo rek sama doom ji rek laa jël dëxañ ñëpp ma gis naa la waaye du ma ko du ma la tudd jaru ngay den dom ndoog moom <laughs> waaw waaw yëre bi neex na ma of mbay xam ngeen ne yëre bi laa bëgg yow yëre bee la sauvé of mbay kon daa sama rakk la moom moom gën a yëpp nag ci xale yi sama rakk la ma nga noonu of nday li nga sañte nee naa mu sañaa dong laa ko yéene yi sama sama sama sama taaw bu jigéen bi waaw ak euh, Madike waaw Madike tamit moom moom vraiment macha allah Madike euh, chapeau à Madike alors euh, Astou <laughs> Astou Astou miinu ma sama turóon waaye miinu ma ko <laughs> Astou ngi noonu donc ba tey ci rek gërëm yi ak sant Euh, donc Maawa Cissé moo fa nekkoon ak Moussa seen et puis nag euh, ñuy ñuy nuyu nag di di ziar bu baax a baax ak itam di sargal euh, communauté Layène yen yëpp père xam nga foofu laa bokk ah, waaw sama borom kër moom fa dugal waaw ma am fierté nag bokk waaw waaw waaw ma bu baax a baax dëgg dëgg bokk nag ci boobu communauté mi nga xam ne ñi ngi dëgmal Euh, euh, aju boo daay laay muy wooteb euh, maam Seydina Limaamu Laay donc ma ci profité rek di ziar kullu wala boog axlu laayeen di nag jiital ci rek boobu ziar ak sargal xalif général bu mag bi di rek sëriñ Abdoulaye Thiaw Laay teg ci nag rakkam yu baax yooyu di rek sama trondoo boroom kër sëriñ Doudou Laay Doudou Makhtar ak itamit imam Makhtar Thiaw Laay imam ratib xatib euh, bu euh, euh, grande mosquée bu Yoff di sama sëriñ di sama chéri naka noonu sëñ Bas mu Adja Marème Adja Marème na sama njëkke la moom laa dëxëñ rek ñoom maam see nekk yéen ñëpp maam see nekk ña ca Maroc ah ñoom ñoom laale ñoom ñoom loolu ñoom ñëpp daal dugal naa ne ci biir Adja Marème nuyul ma ñoo ñëpp mais nag tey émission bi yëpp nag dama dama ko dama ko jël may ko sama sama njëkk personnel muy muy Adja Munaas Jigal may mun a jigal kooku mooy borom Paris Euh, daf ma bëgg ba nga xam ne euh, ba muy ñibbi euh, Paris la nekk mais ba muy ñëw ci appel bi ma nga foofu yoof mun may mun a dafa indi père addi conteneur la indi yëre bébé bàyyi naa jënd yëre bébé yëpp accessoire bébé yëpp ndeysaan la jënd offrir ko sama bébé donc munaas jigal émission bi yëpp yaa ko moom donc face to face la incha allah beneen nag dimanche parce que semaine prochaine nag ñun ñëpp ña nga yoof jàmmalaay Cambérène ak Ngor rek taalal suñu loxo yi maam Seydina Limaamu Laay euh, mu mu mu ñaanal ñu euh, ndax yàlla na yàlla na yàlla tas si barkeem donc mbokk yi amiin amiin euh, à à l'autre dimanche incha allah <laughs>